gars yi ñu ñëw ci beneen jàngat jëmee ko ci li xew Sénégal metti na lool nga ne bitim réew di gis li xew sa réew metti na lool nga faloon nit amoon ci moom yaakaar ne mooy doxal réew mi nekk de kooku day lajj ba jaaca mbooy ba te du nangu ne lajj na ba jaaca mboy ba nit ñi nga xam ne xam nañ ne ki ñuy jàppale lajj na ba jaar ca mboy ba ñooy koy taxaw xool seen intérêt bopp

mais Sénégal rek nga gis nit ñu jox ko marché maa ñu jox ko loo xam ne pour askanam la mu yemale ko ci boppam ak ci njabootam fàtte askanu lëmb yaakaar ne moom adduna bii kër la te bés da ngay ñëw nga dee yàlla laaj la nan nga nekkoon ci ko suuf kon ngalawaay bu ñu dénkee alalu askan bi muy njiit bi muy ki nga xam ne ci gouvernement bi nga nekk ak foo mën a nekk ko suuf xamal na liñ la dénk. du sa moomeel moomeelum nit la te mbooloo alalu mbooloo ku ko lekk mu jig la daa dañ la koy jiiñ te Sénégal damaa gis ne maanaam ki ne ca kaw yërëmul ñi ne ci suuf Sénégal laa gis nga fal président mu jàppee bu buur jàppee policiers yi ak gendarme yi ak ñi liggéey ci institution yi ay surga ba président bi lu ko neex lay wax lu ko neex lay jëf lu ko neex lay def ay mbokkam lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la ñuy jëf dara du leen ci fekk loolu ban réew la ci ko suuf réew bu respecté boppam maanaam président bi amul droit président la ñu wax ñu buur bu ñoon buur bu ko neexee di buuma ko bummi mais bu ñëwee président dafa war a ay limite amuñu ko limité am lu ko régime mu ay loi ak ay ak ak justice mais Sénégal rek ngay gis wala Afrique rek ngay gis président boo xam ne day falu jàppee ñu ci suuf ñu ko fal ay balo la toroxal leen yéenewu leen ñu teg Sénégal rek nga gis président boo xam ne walla Afrique day nekk ci kaw jàppee ñi ko fal ay pauvre toroxal leen maanaam bu bu dee business la mu toroxal leen maanaam fay leen. loo leen impôt yoo xam ne leer na leen ni ñii mënuñu ko fay ba ñu daanu la ñuy mujj alors que bu fekkee ñu bees ñoo xam ne ci beneen réew lañu jógee muy tubaab yi ñu indi leen suñu réew ñu pasar pasare suñu alal jël xaalis bi intérêt yi yóbbu ko seen dëkk Sénégal rek ngay gis président boo xam ne ndaw mi dañuy wax mu jàpp leen tëj ci prison bi président Sénégal rek ngay gis président bi bu ndawam génnee di manifester day jël bal réel tiire leen lor Sénégal ak la am ay manifestants di manifester wu ay policiers ay takk der jël bal réel tiire si ci ay nit te jeunesse bi nekk su futur jeunesse bi nekk ñi war a doonu réew mi tabax ko nga waroon am compréhension ni ñi daam leen metti ndax ñii de bu ma bëggee ñoo ma téye jox ma li ma bëgg nga jël leen di leen boom nga jël leen di leen toroxal dem jëndi ay kanar ay ay ay li nga xam koy tak ci tank yi pour mën traquer nit ñi ndax sa pexe bopp sa mën tok sa sa njabo tok ñi la and ak yow tok dañ xam nañ li ngay jappal du dëgg de re mom lañ ne re mo xam ne nit ñi dañuy xam dëgg xol seen intérêt bop té aduna bo fi yàggee bu yàggee ba yàgg du do fi dund 100 ans kon lu fi jar ngeen nii dañ leen taxaw ci dëgg diko jëf diko wax dëgg rek moy mujj te mooy njëkk te mujj ku mu neex ku mu naxari deugay yi ñëk te muy muju Macky Sall di nga dundu fekk fi Sénégal da ngay dé ak lo mëna jëf ci ko suuf da ngay dé bay fi Sénégal ñaan ak yow dañuy dund fekk fi Sénégal te dañuy dé and ak Sénégal bébon nak ñu and ak yow manam jappalé la lu ñu mën billahi wallahi wa minallahi mu lay neex mu lay naxré dang fi joggé muy tay muy suba té bo déwé di nga lay ak suñu borom ñaan ak yow dañu lay suñu borom wassalam